Dakar News 221 abonnez ñu ngi rafetlu àndit bi ak Dakar News 221 xanaa di la ñaan nga abonné ci chaîne bi bés ci nga xam ni di mooy cloche de notification bi bu ko defee bés bu nekk incha allah di nga mën a jot suñu ay vidéo. mbokk yi xibaar yi dañ koy euh, tàmbali rek ak mbir wu tiis bi nga xam ne nii moom moo am fi mu toll nii ci arène senegal bi teel ci sénégalais muy génn àdduna ki nga xam ne nii mooy Moussa Dioum nekkoon euh, lutteur waaye génn àdduna bi métti na lool ni mu génnee àdduna ndax euh, ndaw la gu dem te génn àdduna Moussa Dioum doon na li nga xam ne nii bett na loolu wax dëgg yàlla. waaye di mastawaat papam rek ndax ku nekk xam na doom ni mu mel ci wayjur rawatina mu génn àdduna bàyyi la fi te mu doonoon koo xam ne nii yaakaar la ci yow kon ñu ngi ñaan kii di Moussa Dioum rek yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana gannaaw ba nga xamee ne nii benn góom la amee woon ci tànk bi bu ndaw affaire boobu moo mujjee dem ba ëpp ko doole wax dëgg yàlla dog ko feebar bu metti mu ngi feeñoon ci yaram bi ci janvier bi ñu génn ba mbir yi daal noonu la mujjee ndeysaan waaye borom bi euh, mooy dogal tey yàlla foofu la ko jaarale xanaa ñuy ñaan kii di suñu borom yàlla na ko yëram xaare ko aljana te dénk ay juróom xolu muñ bu ñu jógee ci loolu dañuy wàcc directement ci li nga xam ni ni mooy pël yi actuellement réseaux sociaux bi mooy gone ya nga xam ne ni ñoo nekk fële ca Fatick euh, doon xeex xeex bu metti ba nga xam ni booy bi téye na moroomam bi def ko lu doy waar. dóor ko dóor yu métti gaañ ko ba xale bi mu ngi ko naan baal ma waaye xolu ki ñaan tax na faalewul ki nga xam ne ni mooy xale boobu continuer di ko dóor ci bopp bi ay coups yu métti ba jamono ji ñu wax ak yéen nii laax nañ ko jant bi ñu ngi ko fas yéene euh, jugé ci mois de mai bi actuellement ñuy wax ak yéen nii mu ngi mandat de dépo wax dëgg yàlla xam naa yoon dina def liggéeyam ci loolu incha allah bi waaye buñ ci jógee dañuy xuus directement ci mbiru ki nga xam ne ni mooy les chanteurs du peuple Wally Ballago Seck doomi Papa Thione ji gis ngeen euh, démb waaw ni mu demee ci tali bi mu doon euh, affaire bu doy war wax dëgg yàlla ndax euh, kii di Wally Ballago Seck ku ne xam na ni homme homme homme public la te homme public moom dafa xaw a metti dund fii Sénégal ndax foo romb nit ñi foog ñu génne seen téléphone filmé foog ñu topp la foog ñu def nag waaw foog ñu def noonu daal wax dëgg yàlla ba tax na ki nga xam ne nii mooy Wally démb ku nekk euh, xam na ni Sénégal jamono ji ñu wax ak ni dafa am ci oto bi oto bu rafet oto bu taaru wax dëgg yàlla mu doon oto boo xam ne tàmmuñu di koy gis fii nii ci réew mi moom oto boobu fépp fu mu romb rek nit ñi daañu taxaw seetaan ko démb bi muy daw ci tali bi nag. am ñu seen kii di Wally Ballago Seck daal di koy topp ñi di ko filmer am ay scooter yu nekk ci kanamam ak ci ginnaawam ak ci wet gi ba Wally mënta avancer mënta arrière ginnaaw bi la fa embouteillage bu metti am kii di gendarme bi ñëw ci Wally bi mu ñëwee euh, nangu li nga xam ne ni mooy këyitu Wally Wally na ko léegi comme que jàpp nga ma danga may bindal li nga xam ne mooy attestation comme ça ma mën a dem euh, tegu ci yoon ginnaaw bi gendarme bi ne da waali wàcce oto bi ci tali bi na droite waali ne ko du ma droite oto bi fi nga ma jàppee fi nga may bindalee may door a dem mais fii duma fi jógee coow li foofu la soxe ko waali wàcc topp ci ginnaawam wax dëgg yàlla sénégalais yi nag wàcc li nga xam ne nii mooy tali bi ñëw taxawu ki nga xam ne mooy waali ko waali bàllaago ne ko yow lañu àndal yow lañu àndal kon mbir mi foofu la dooree mbokk yi xanaa di leen wax rek incha allah dinañ leen toppalaat xibaar bi lu ci gën a yées rek dañ leen ko indil fii ci Dakar News 221. Dakar News 221